waaw Pape waaw xam nga rek pour préparer le douze bi comme ñoo ko defarloon euh, lim sol si couverture album bi ak yeneen ak yeneen euh, ñu fas yéene defaraat ko loo xamante ni nii rek lu lu lu mucc ayib la. waaw xam nga rek comme le douze bi moom événement la boo xamante ni surprise rek def loo xamante ni nii fu yi foogul rek. waaw xam nga couleur yi moom bëri na ak couleur sur scène aussi. waaw defal ko tenue boo xamante ne nii extraordinaire. waaw. waaw maa ngi leen di jox rendez-vous le 12 xool Pape Diouf mu sañse sañse bu amul fenn waaw jaajëf.